jam ak balla faali jëng lu dul barakaatu bokki jullit yi bokki taalibe yi asalaamaaleykum noo ngi leen di nuyu di leen ziyaara bu baax euh, di yëkkati sunu kàddu nag jëme ko ci bis bu màgg bu tedd boo xam ne moo nekk ci sunu kanam muy bis boo xam ne dañu koy amal di ko taxawalal kenn ci njabootu euh, sëriñ Touba waaye kenn ci taalibe yu mag yi muy Cheikh Issa Diène radiyallahu taala anhu borom tedd nga ya ka xam ne moom la Cheikh Ibrahima Jub al-Mashari doon wax ne haadha al-mafakhira idha jenn suu karamin wa faasa bil xurbi wa ridaan bil xidam hibbul xadim wa misbaahu tariqatihi bihi stanaara liman yamsi bila zulam muy bis boo xam ne nag mooy journée culturelle Cheikh Issa Diène nga xam ne euh, sëtam yu baax yi ak njaboot gi ñoo ànd muy jamhiyatun li tawxideexi euh, wa nasri injazat Cheikh Issa Diène Euh, ñu taxawee ko ci njiitu Serigne Cheikh Jenn waaye nag ak mboolem sëti mboolem njabootu maam Cheikh Issa Jenn gi yëpp mboolem ñi nga xam ne ñooy am liggéey bi di ko taxaw muy bis boo xam ne it gis nga niñ koy delloo ñu delloo ko ren jii mu war a doon dimanche incha allahu le 12 mars ca Cissés bis boo xam ne nag dañ ko jagleel jàmbaar muy Serigne Balla Fally Dieng ma nga xam ne Serigne Touba moo ne woon defar taqoo moo nga xam ne moom la Serigne Touba waxoon ne defar nañ ko ba noppi ma nga xam ne it moom la Serigne Touba waxoon ne kër gu mag ta ñàkk mag te Issa Diagne mag la euh, sëñ Balla Fall mag la la leen boole it yàgg lool ndax ku xool jumaay Njaaréem bi ñu koy liggéey xool taxawaay taxawaayu Cheikh Issa jenn ci ndigal li ko sëriñ bi joxoon waaye ko xam sëñ Balla Fall Dieng xam carnet ba mu yoroon ak taxawaay ba mu yoroon loolu wane na ko maam Cheikh Issa Diagne nag kenn ku ci nekk am na yéene ci moom ndax doy na misaal liggéeyal Serigne Touba ak jëfal Serigne Touba mayoon na ko Serigne Touba ne lu ma yëkkati sama kër gi mu ne bul fàtte Issa Diagne mu doon koo xam ne it Serigne Touba waxoon na ne damay ñaan yàlla sama borom guddi gu nekk mu yëkkati baqaamam def dara jaam ni Abdul Xaadir Jeylaani kawee awliyaullahi yi noonu Cheikh Issa Diène kawee ko loolu defe naa boo demee ca waxi Serigne Mbacké Kani ni nga ci fekk loolu te la muy wone rek mooy ab doyam wane ab tolluwaayam kon nag ñoo ngi ciy jox ñëpp woote incha allahu muy dimanche le 12 ca Dakar CICES bis bi nag mu baaxoo defee xam ngeen ko njàngum alxuraan maanaam daan tàmbalee boobu ba léegi taxawaayee ci bernde ko xam si kër Cheikh Issa Diène xam ko ci bernde ndax taxawaayee ma waaye nag ay waxtaan yu am solo yoo xam ne dalal gan ñi waaye nag ñun tudde bi si prin yi nga xam ne mooy Serigne Balla Fally Dieng dalal leen amal fa yoo xam ne incha allah yu yu bari lay doon waaye da ngeen ci ànd boo xam ne seen mbokk ngeen koy àndal seen seen soppe Gana Messere Maxtaar ñu di ci jox ñëpp rendez-vous incha allah ci waxtaan wu yaatu woo xam ne dafay jëm ci Serigne Touba ak Terbiya te ku tudd ñaar ñooñu Serigne Balla Fally Dieng tudd Cheikh Issa Diène da nga xam lan moo di ak tërbiya kon loolu lañ fa seen waxtaane incha allahu kon nag yàlla na yàlla gën a yàggale yéen yi te taxawu ko te taxawu nag kuréel bii nga xam ne mooy jamaxeetu tawdeex wa nasr li injazat siza jenn ba fañ yéenee yeggale seen liggéeyub maam bi seen liggéeyub kilifa gi nu yàggale ko baraka Cheikhul Khadim Serigne Cheikh noo ngi leen di ak commission bi ngeen àndal asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu